ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kawo Sa Thiès Boy Niang daan na ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ noonu laa def daan leen déwénati internet yi leen baalu àq bu baax a baax di leen leen baal àq tabaski bi ñu jógee di nuyu ko ci nekk turam ak santam waaye di nuyu Assane Wala ma feggoon borom Linguère naan ko déwénal ci Assane maa ngi lay nuyu. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di la remercier di la baalu ak également di baloo ak internet yi di leen ñaanal ñu feetewaat tabaski bi ay année yu bëri bëri bëri di leen nuyu di leen euh, jaajëfal bu baax. di leen bëggee bu baax di sant di gërëm nag suñu sponsor yi ñu àndal di Jador indi ñu gàmbu complet boobu macaron Jador spaghetti Jador vermicelle Jador ñu ne déet Assane waaye kenn du ko kayaar. Hmm. ndox ndox yi baax set sell neex a consommé baax ci xale baax ci mag naan ko oo kayaar ndox bi ñuy aar asal ndoxu sportif yi ndoxu sportif yi voilà noonu daal dina saraax ci journal suñu nag ka muy xëy ci xëtam bu njëkk di mbay booy mbay booy nag mooy coach nga xam te ne mooy B52 de Mbour di Bombardier la muy xam ne ne na Gaye nag xale ba ca Guédiawaye nee na Balla Gaye n'attaquera jamais Bombardier ndox moo ko asal dëgg la Ndeye Mbacke mbay Boye moom mooy coach Bombardier waa suñu làmb nag dañuy demoon Mbour dajeeg fa moom séq ak moom waxtaan moom nee ne euh, Bombardier dafa am expérience ci làmb te dootul gan moo tax euh, événement du ko dépassé ti nee na yàgg nañ ci combat bi moo tax seen combat bi euh, lépp pare nañ ko dañuy dem pour gagner ñoom nee na victoire rek leen gis gisuñ leneen nee na on attend que la victoire on en guerre. Euh, te bu ñu dem guerre arme yëpp dañ ko yóbbaale duñ bàyyi dara Balla Gaye daal na leen xaar la le 31 juillet ñoom dañuy dikk pour dal ci kawam. te noonu nag naqar ba tiis nga xam ne moo dal ci kaw du mën a axlu lam waaye ci kaw promoteur ya combat bi doon dox ci diggante Ndekuréel la Marley Naaru Sogas ak nga xam ne mooy Jackson di yeer nag combat ba nag Assane Waalo dañ ko reporter ndax manque de force d'ordre. dañ bul ne promoteur rek mais acteur u làmb yëpp la naxari puisque ginaaw bi ñu toogee une semaine euh, amul làmb ndax fetu tabaski bi amateur yi yaakaaroon nañ ne euh, démb ak bërki démb bu ñu demoon stade dinañ seetaan làmb mais malheureusement. combat yi ñu fa programme woon mooy Nekorel ak Marley ci es arène nationale dañ ko annulé naaru sogage bi waroon a daje ak Jackson Ibamar yëpp également combat yëpp dañ ko annulé lu tax na ñu annulé ko mooy manque de service d'ordre ndax euh, peut-être autorité étatique yi dañuy décision na benn force de l'ordre bu mu quitté pour dem di encadrer ay manifestation sportives te nag journal record rek moom rek ba mu xëy ci àddu la mu xamal nag du annulation waaye le CNG a déprogrammé tous les galas de lutte nécorellement la tombe à l'eau dëgg la Ndeye Mbacke bu ne annulé euh, CNG ma xam naa officiellement naan déprogrammé ndax euh, samedi bi ñoom dañu def benn déclaration comme quoi que journal wala lamb yi amoon ci euh, Dakar muy Iba Mar Diop ak arène yëpp dañ ko déprogrammé ba beneen jamono lu tax ñu déprogrammé ko nag euh, nee ne force de l'ordre moo amut ndax dañu dem euh, di wuti ay gendarme wala ay policiers yoo xam ne dañuy dikk pour sécuriser mais dañ leen a xamoon ne ñoom dañu jot ordre pour bañ a jógee seen caserne yi donc mënuñu woon dem di sécuriser lamb yooyu fi amoon si weekend bi fa ñu jeexalee nag ci làmb boobu yàqu dimanche bi passé nag mooy journal bi mhm. les arènes. la muy xam ne nag mooy l'annulation du gala du dimanche 25 juillet. les promoteurs fustigent le CNG. réplique ex explique noonu la ko waxee nee na ñoom bu dee promoteurs yi dañuy fustiger yi lu xew waa CNG moom ñu ngi expliquer lan moo waral loolu ndax euh, les arènes dafa jox kàddu kii di euh, promoteur bi di jumbo mi nga xam ne nii. moom mooy jiite rent DKR waroon tëgg combat entre euh, Nekorel ak Marley démb wala euh, ci démb way ci dimanche bi arène nationale ba mu ko joxee kàddu nee na moom lu ko gën na naqari mooy que dañu dem ba dimanche euh, kenn informé wu leen que ne affaire bi dañ koy reporter nee na loolu manque de respect la wala manque en tout cas photo CNG la ndax nee na investi na 30 million li waroon mooy que avant deux jours wala un jour de di di di de l'événement ñu wax leen que ne seen combat bi finalement mënul am les arènes jox na ci également kaddu euh, waa CNG Maysa Ndiaye la ciy jox kaddu Maysa Ndiaye moom mooy premier vice président bu CNG moom mooy également euh, euh, commission moom moo jiite commission bi nga xam ne nii moom mooy gérer lutte avec frappe moom li wax nee ne mm, bi leen waxee ne làmb yi mënul am. dañ doon jéem a waxtaan ak autorités yi pour que ñu trouver solution mais dem nañ ba benn moment nag xam nañ ne mënatuñoo am service d'ordre mais nee après boobu wax nañ euh, promoteurs yi que ne seen finalement seen lamb yi mënul am en tout cas daal coow am na jaxasoo am na également waaye manque d'organisation également noté nañ ko fa. te noonu nag kii di Baytour Ndoye nee na AREELS dina porter plainte contre le CNG ngir la Ndeye Mbacke euh, Bayti Ndoye membre la biir AREELS AREELS moom mooy association des responsable des écuries et écoles de lutte du Sénégal képp kuy patron wala kuy manager wala responsable écurie rek da nga fa nekk membre moom nag euh, moom mooy président écurie bu Yoff. donc moom li wax nee ne euh, waa CNG la bëgg a porter plainte ndax lu tax mu bëgg leen a porter plainte nee na dem nañ ba ci midi dimanche ci midi mbër yi wala manager yi kenn woowu leen euh, officiellement ne leen bu ngeen bëre ndax loolu neen te nee ne loolu fëtu CNG la te loolu jar na ñoom ñu porter leen plainte pour que prochainement lii bu mu amaat. tëral nag ginnaaw ba ñu annulé yooyu le combat dimanche bi passé mi combat boo ko xam ne rëdd DKM moo ko organisé woon. Mhm. Bombardier Balla Gaye numéro 2 Papa Sow Siteu Tapha Tine Boy Niang également en menace dëgg la Ndeye Mbacke comme euh, combat yi amoon ci week-end dañ ko mën a dañ ko reporté wala déprogrammé ndax manque de service d'ordre Euh, journal record tamit dafa wax ne kii di Bombardier ak Balla Gaye mi nga xam ne ni ñu ngi war a bëre le 31 juillet bi di ñëw Papa Sow ak Siteu le premier août ak Tafatine ba ak euh, Tafatine Boy Niang 2 le 8 août nee na combat yooyu également dañu nekk ci menace ndaxte euh, service d'ordre bi tax ñu reporter combat yi mën na leen a dal ba seen combat également ñoom it ñu reporter ko. te loolu nag journal record record nag dañu xam mu ngi indi ay solution ci loolu. question bi ñu posé wu nag mooy. Mhm. ndax le stade n'a pas sonné. Mhm. ndax jotul stade yi am dëgg la wàllum stade moom mooy ñi nga xam ne ni dañu sol seen gilet di euh, taxaw ci autour de l'enceinte di protéger wala di sécuriser làmb ji loolu benn sans waxoon nañ ko ci làmb ji mais dañ ko dañ ci génnaat loolu record nag posé wu la question nee na est-ce que jotul waa làmb ji wala waa CNG forme ay nit nekk def leen ay stade. par pour que prochainement bu situation yi posé woo stade yoo ñëw sécuriser lamb yi loolu buñ ko amoon tey lamb yooyu dina dox normalement sans reporter report yi di am. te loolu nag làmb bu mag bay am la 31 juillet diggante Balla Gaye ak B52 de Mbour ñun journal des arènes la muy xamle mooy Balla Gaye numéro 2 mu ngi travail di liggéey bu baax moo ki nga xam ne mooy Baye Boy ex roi des arènes bu jàmbaaru ba Sa Thiès raxam ak ki nga xam ne mooy dëgg la Ndeye Mbacke ginnaaw bi mu jógee INSEP def un mois de préparation Balla Gaye ba mu ñëwee dafa def kër dafa dem kër Aziz Ndiaye dafa benn camp d' entraînement. journal Les Arènes nag nee na camp d' entraînement boobu Balla Gaye ki ñu ko séqal moom mooy Sa Thiès mii rakam Baboy mi nga xam ne nii nekkoon na euh, Pikine ak euh, Sokosi mi nga xam ne nii écurie Balla Gaye la nekk nee na ñetti ñi daal ñoo koy encadré ñoom ñoo nekk ay sparring partenaire am ci combat bi waaye nee du ñoom rek ndax Moussa Fall ak euh, Mamadi Ali bi mi nga xam ne ni dañ ko doon suivre INSEPS nee na jógee nañ Paris ñëw Dakar uniquement pour encadrer Balla Gaye mën na nekk combat bu neex a neex Assane ba léegi nag Abass Ka moom nga ne xam mooy président commission médicale bu CNG la nga xam ne nag mooy la Abass Ka moom président commission médicale bu CNG samedi bi passé dafa doon def benn euh, journée de sensibilisation foofu ci arène national foofu na ko les arènes jëlee nag li mu fa wax nee ne cas mort subite dafa exister ci biir làmb seulement duñ ko noté mais lu am la ci biir làmb wax na également ci wàllum euh, âge de retraite nga xam ne 45 ans mbër yi dem euh, retraite moom nee na personnellement gis na mbër yoo xam ne ni am nañ plus de 45 ans mais moom moo leen autorisé ñuy participer ci biir làmb ji peut-être euh, li mu gis ni ñoom ba bàyyi leen ñu ñuy continuer moo xam nee na wax na également ci port des gants nee na sport combat yëpp. dañuy exiger port des gants mais ne làmb peut-être euh, benn sport la bu spécifique bàyyi nee na di xool euh, yan gants lañ war a mën a jël ak nan lañ koy solee ba un jour euh, làmb également war a am ay gants. Mm-hmm. non pour man pour man pour man làmb bu ñu ko booleeg sport yi nga yeneen yi làmb réalité boo xam ne ni Sénégal rek la xew mm-hmm. mën nañ fi def. sport boo xam ne ni ñun ñoo ko moom te duñ def gant yàgg depuis des années ñi ngi koy def sans gant mosuñu fi dóor nit ba de dee ñaanuñ ko yàlla bu mu am mais daal mën nañ ko ne sans gant gant yi day day day xajamal rek. làmb ñoo ko moom nan ko nan ko. nan koy defee nan koy defee nun ko daan defee. Mhm, pour man mooy mooy daax. te doon nag Gaston Mbengue sur son gala du 31 juillet lam cay xam ne rek mooy nit ñi ba ñuy tiit moom xelam dal na muy dalal ay xelu amateur li nga xam ne nag Balla Bombardier se tiendra toujours. dëgg la en tout cas ba démb yaakaar naa Gaston ci disposition la yooyu la topp nee na daal malgré report combat yi am ci weekend moom moom combat bi nga xam ne nii war na dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye le 31 juillet ba fii mu nekk nii euh, mi ngi à l'actualité dina ko doxal waaye nag jël na ay disposition pour que ñu mën ko tenir nee na day def huis clos partiel def stade bi 20 la mais moom nee na day jaay 5000 tickets. comme ça mu am distanciation distanciation sociale ci biir arène bi nee na également le port du masque exigé ku fa ñëw solo masque doo dugg waaye également gel antiseptique tamit doon ko fa utiliser le jour J. mu ngi noonu nag loolu moo nekkoon li gën a fas xibaaru làmb Assane Waal dama lay kontaanee looy tàggatoo di la remercier Ndeye Bakké di remercier internet wu Leewtoo TV Yacine Fall Mansour ak euh, Bilal équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen remercier allah. di leen jaajëfal bu baax a baax équipe Leewtoo TV jaajëfal internet yi ñuy seetaan dañu toog boobu ba léegi ci Leewtoo kenn amul seen fay yéen a tax ñu fiy toog suñuy sonn ñun nii yéen yéen a tax waaye ki jàpp ci mbagg yi ba tax na lépp di màcc soo leen gisee image yi muy leer de set Bilal moo fa jaar Bilal Ndiaye jaar Ndiaye damay bëgg ci yow Yacine Fall kontaanee naa la bu baax waaye Fama sama kaw moom bi kenn du moom Baba moo ba baax dama lay remercier baax su ma limee damay juum damay sant gërëm équipe technique Leewtoo TV bi cat ba cat Leewtoo production commencement ba fin waaye jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm ñaan leen jàmm te di ko sàkku ci yéen noonu laay tàggatoo ak yéen jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin na ngi ci suuf attention Sa Thiès ak Boy ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na